fièvre maanaam tàngooru yaram bu dem ba yegg ci quarante degré ak ay wàcc yu métti ba tax muy perte connaissance ñu yóbbu ko réanimation loolee la ñu mën a jàngat ci pàcc bu njëkk ci document bi nga xam ne ñii di waa administration pénitentiaire jébbal nañ ko ministère de la justice mu doon ay bataaxal yu garaaw yi nga xam ne kii di médecin commandant doon chef de l' administration pénitentiaire moo ko génnee ni ki le 24 octobre 2023 ci compte rendu bi kii di médecin chef bi di ci yokk ne kii di Ousmane Sonko dafay janneer te itam di wax nañ ko yóbbuwaat ci maison de correction bu Sébikotane donte sax ko ndax dañ ko war a téye fii ci réanimation bi médecin chef bi di leeral ne état bi nga xam ne ci la Ousmane Sonko nekk nag li ko gën a yokk mooy tàngooru yaram bi nga xam ne ba léegi xamaguñu lan moo ko waral donte sax def nañ ay analyse yu bëri document bi nag tax ba ñu bëri yëngatu ci lu ci mel ni procureur de la république nga xam ne donte sax weddiwul wax ji dafa rek condamné nu mu demee moom nag ci communiqué ma mu ngi ci ñaawlu li ñuy duppe violation des droits des détenus respecté wul àq ak yelleefu kii di Ousmane Sonko ba tax mu ubbi ab l'enquête ngir mën a teg ci yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo génne publication bi kii di procureur bi nag waxul benn yoon li jëm ci wàllum document bi dëgg la wala du dëgg muy mel ni rek bataax bi nga xam ne ñii di waa administration génne nañ ko lu leer la te itam wérgu yaram bu Sonko mu ngi sooxe bu baax a baax ndax war nañu ragal li gën a garaaw am ci ak lu ci mënti am waa administration pénitentiaire leeral nañ ko ba tax ñu war a jël ay matuwaay